asalaamaaleykum askan bi seetaan Star TV da leen si jàmm si kër gi mbokk yi su ko defee ñu ànd ak yéen ci xibaaru marax yi ngeen ànd ak seen doomu ndey ci bopp xibaar yi mbokk yi njiit réew mi excellence si président Adama Barrow dalaloon na ay gan yu màgg foofu la ca State House mu amoon waxtaan nga xam ne def nañ ko ci wàllu contrat yi ñuy doxal ci réew mi. Gambia Armed Forces nag seen engineering team bi ñoom nag euh, nee nañu euh, am naa ñetti euh, semaine jàngale bi nga xam nag jeexal nañ ko. Euh, jàngale boo xam ne nag ñu si doon yokk li nga xam ne nag moom mooy seen xam-xam Media Council ak euh, Gambia Press Union ñoom nag génne nañ seen i bataaxal jëm ci wàllu euh, bés bi nga xam ne nag dañ ko jël jagleel ko jigéen yi di International Women's Day foofu la ca bitim réew xeet yi ñoom nag yokk nañu watt bi nga xam ne nag moom lañ appal seen state of emergency ndaxte nag foofu la ci li nga xam nag moom mooy réew moom a jàpp ne dafa am wattu bu nit ñi du dugg ak bi ñuy génn Euh, ca Kenya benn mbootaay boo xamee nag jamono ji ñu ngi dox pour jeexal li nga xam ne nag moom mooy fitnaal bi ñuy fitnaal jigéen ñi ñu ngi continuer seen i doxalin bi nga xam ne nag ñu ngi koy def ci réew moom mbokk yi ak yeneen xibaar su ko defee léegi-léegi ñu ànd ak yéen euh, yi dal leen si jàmm ñu ko ak euh, njiit réew mi Excellence yi président Adama Barrow moom nag am na ñaari fan fanu ndaje bi nga xam ne nag amoon na ko foofu la ca State House ay nombu tànk ñoom ñoo fa teew woon euh, mu di euh, juróomi fan yi ba juróom-benni fan yi ci weeru mars yi nga xam ne nag ci nekk ndaje bi nag wane ne kilifa yi fa toogu euh, yi fa ñëwoon nag na si nag moom mooy ay ñi nga xam ne dañuy doxal sarta yi nga xam ne nguur gi ñu ngi koy doxal ñu ngi ko tëral ak i tamit contractors yi ba ñi nga xam ne ñoom ñoo techniciens yi ñoom yëpp ñu doon segg seggaat li nga xam ne nag moom mooy nguur gi ay projets yi nga xam ne nag ñu ngi koy liggéey ci réew mi ñu ànd cee président Adama Barrow oote na nag eh, ndaje foofa ca State House nekk sa Banjul si weeri maaj bu mu amee juróomi fan ak juróom benn fan atum 2024 ndaje boobu nag eh, li ko waraloon mooy pour ñu waxtaanee lu jëm ci eh, continuer yoon yi nga xam ne ñi ngi koy def fii ci biir réew mi kero bés boobu nag ñi nga xam ne nag dañuy defar luwaa muy nag policy makers si ak ñi nga xam ne nag dañuy yëngu lu jëm ci wàllum contractor maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy def liggéey bi ak ñi koy saytu nag euh, booloo euh, si diggante ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñooy liggéey ak ñi nga xam ne nag ñoom ñooy bàyyi xel liggéey bi ni muy demee ci nag projet boobu mu xam ne nag liggéey bu yéex bi mun naa gën a andi nag feere dépense bu bëri lu aju nag ci yoon boobu président Adama Barrow nag wan na mbégteem ak kontanteem si yoon boobu nga xam ne nag pare na ndax nag lool doon na li nga xam ne nag dafay gën a nag dëgëral réew mi muy yoon yi nga xam ne nag ubbi neen ko fii si biir réew mi ndax loolu doon na li nga xam ne nag dina gën a yombalal nag ëllëgu nguur gi ak nag nit ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk nag fii si biir réew mi ndax nag liñ doon xaar si moom pour nag mu koy motal jamono ji nag lu toll si juróom-ñetti téeméeri kilomita mu nekk ay yoon yi nga xam ne nag ñu ngi koy defar fii ci biir réew mi si ay yoon yu ute ah, doon li nga xam ne nag ah, ñu ngi wéyal ak eh, liggéey booba bés boobu nag ah, doonoon na bés bi nga xam ne nag ñu bëri teewlu neen ko ku si mel ni honorable Ibrahima Silla mu nekk jëwrin bi nga xam ne moom lañ dënk wàllum liggéey ak ki nga xam ne moom mooy honorable Babacar Boy moom tamit mu nekk jëwriñ bi nga xam ne moom lañ dënk nag public service ak ñeneen ñi nga xam ne nag ay permanent sectrice leen nekk foofu noonu nag di liggéey ca NRA ak ñi nga xam ne ñoom ñooy def liggéey bi ak ñi koy bàyyi xel rawatina nag Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy technical staff yi nga xam ne euh, ñoom ñoo nekk nag euh, si ministre bi ak nag si office yi ki nga xam ne moom mooy président bi ñoom ñëpp nag teewlu woon neen waxtaan boobu pour gën a nag xool naka la ñuy gën a nag dëmmalee liggéey yooyu nga xam ne ñu ngi koy def fii si biir réew Star TV News Oli mbokk yi ñu sant ak gërëm Oly Dieng ci xibaar boobu bu ko defee dañuy dem seeti ci Gambie Armed Forces mooy soldat yi ci réew mi ñoom nag seen combat engineers explosive ordinance disposal team bi nee nañ nag ñi nga xam ne dañuy seetu li nga xam ne nag moom mooy li jëm ci wàllu bo bo yi nga xam ne dafay fetteeku eh, fan yi nag ñoom ñoo jeexal seen i ñetti semaine eh, jàngale bi nga xam ne nag ñu ko doon def nee nañ seen téeléem bi ñu ko defee fële a Tinting Ba Eh, seen fayar ndëñ bi nga xam ne nag moom moo fa nekk fële ca li nga xam ne nag moom mooy Foñi Kansala sa tund West Coast Region wadee nag eh, foofu lu toll si eh, fukki nit ak juróom ñoo xam ne ñu xaral nañ ci li nga xam ne nag moom mooy soldaar yi ñoom ñoo bokkoon nag ci training boobu ñu ànd ci Seydou Camara Gambia Armed Forces mu di soldaaru réew mi seen combat engineers explosive ordnance disposal team bi am na ab tàggat bi nga xamante ne nii ñu ngi leen ko doon defal fii ci biir réew mi tàggat bi nag am na lu toll ci ñetti semaine yàlla yoo xamante ne ni am na ci ay mbir yu bari yoo xamante ne ñu ngi leen ko doon jàngal pour ñu gën a mun a xareñ ci liggéey bi xamante ne moom lañ leen sas fii ci biir réew mi waaye ñu mun a liggéeyee jumtukaay yu xarale yi nga xamante ne ni moo ànd ak seen i liggéey tàggat bi nag ñu ngi ko defee foofale ca tintin Tintinba Firing and Demolition Range bi nekk ca diwaanu Foni Kansala West Coast Region te am na fukki soldaar ak juróom yi nga xamante ne ni bokkoon nañ ci tàggat boobu ñu tànnee leen nag ci explosive ordnance disposal team bi nekk ci soldaaru réew mi si diir yi ñetti semaines yooyu nga xamante ne ñu ngeen ko doon tàggat am na ay mbir yu bari yoo xamante ne nii jàngal nañ leen ko bokk na ci topics si nga xamante ne moom lañ leen jàngal foofa mooy basic demolition procedures ak tamit advanced explosive theory lii yëpp nekk na ay mbir yoo xamante ne ni dafa ànd ak seen i liggéey ak i tamit detection and disposal of unexploded ordnances tàggat bi nag ñu am yaakaar ne dina waral ba bu fekkee ne soxla nañ leen ci liggéeyu aju ci mbir yu nu mel dinañ ko mën a def te duñ ci am benn jafe-jafe fii ci biir réew mi ndaxte méngoo na ak li nga xamante ne moom mooy jamono. graduation ceremony bi nag ki nga xamante ne rek moom mooy inspector general of the Gambia Armed Forces di lieutenant colonel Baboucarr Sagnang moom moo fa teewaloon chief of defence staff bu Gambia Armed Forces mu di lieutenant general o O.A. Cham bokk ne tamit ci ñu fekkee woon graduation ceremony bi mooy ñu bàyyeekoo ci four infantry battalion bi Kanilai Barracks ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci taskatu xibaar yi nekk ci réew mi tàggat bi nag ñu jàppane tàggat bu am solo la ci soldaar yooyu dem na comme ni ñu ko bëggee ci béréb boobu Seydou Camara Star TV News. mbokk yi juróom-ñetti fan yi ci weeru euh, match bu nekk rek euh, bés la boo xam ne dañ koy jël jagleel ko jigéen yi ba tax na media council bu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Gambia Press gi seetu euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo taskati bataaxal nag di fàttali li nga xam ne nag moom mooy askan bi taxawaay bi nga xam ne jigéen am na ko ci àdduna si ñu ne nag statement bi nag fàttali neen tamit journaliste yi taskati xibaar yi ak ki nga xam ne nag moom mooy béréb bi ñuy liggéeyee li nga xam ne moom mooy seen warugal seen diggante ak askan ak i tamit nag àq bi nga xam ne diggante ak jigéen yi ak i tamit xibaar yi nga xam ne nag ñu koy jàllale jëm ci wàllu nandalam jigéen ñu ànd seeg Seydou Camara. si weeru màcc juróom-ñetti fan yi atum 2024 Media Council ak Gambia Press Union mu di mbootaay bi ëmb taskatu xibaar yi nekk ci biir réew mi ñu ngee feetal nag bés bi nga xamante ne jigéen yi lañ ko jagleel ci àddina wërngel képp ba waral na ci bés bi le nag ñu ne ñu ngee fàttaleel taskatu xibaar yi ak bérébu taseekaay xibaar yi nekk ci biir réew mi seen warugal ci askan wi dëkkee fii ci biir réew mi naka noonu yit seen warugal ci euh, bu fekkee ne ñu ngee report ci lu aju ci female genital mutilation mu di nàndalub jigéen fii ci biir réew mi ci seeni bataaxal bi nag euh, daal di nañ fa indi ay leeral ci wàllub luwaa bi nga xamante ne ni moom lañ bugg a génnee fii ci biir réew mi gannaaw bi nga xamante ne nee nañ nandalub jigéen dañ koo tere woon ci réew mi gannaaw bu ñu amaleeb ameen men ci euh, li nga xamante ne moom moo nekk Women's Act bi fii ci biir réew mi ci atum 2015 léegi nag am na ab luwaa bi nga xamante ne ni euh, député yi yóbbu nañ ko ci pencam ndaw réew mi pour fexe ba gis ne luwaa boobee tere nandalub jigéen ci réew mi dañ koy dàqalu Gambia Press Union nag eh, ñu nge fàttali ñi nga xamante ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi ne dafa am warugal bi nga xamante ne ni moom moo leen war ci réew mi pour fexe ba gis ne ci liggéey bu ñuy def nag dañ fay sàmm àq ak yeleefu jigéen ñi surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ndaw yi loolu nag waral na ñu ne ñu ngi fàttalil ñi nga xamante ne ñooy taskatu xibaar yi ak bérébu taseekaay xibaar yi nekk fii ci biir réew mi dafa am solo lool pour ñu aar ñi nga xamante ne ñooy suñu jigéen ñi ak tamit suñu ndaw yi nekk ci biir réew mi ci lépp li nga xamante ne ni daf leen di lor te ñu jàpp dañ koy def sukkandiku ci aada ak cosaan ndax ni nañ 2015 law bi mu di loi bi nga xamante ne moom lañ dugal ci atum 2015 moom moo tere nandalub jigéen ci biir réew mi ndax boo demee seeti euh, sex section euh, boo demee seeti ponkeel bi lee euh, mu di 32 ak 32B ci constitution bu réew mi ci li nga xamante ne rek moom mooy loi boobu booba nag dañoo tere nandalub jigéen ci biir réew mi ndax dañoo wane ne képp ku yëngu ci wàllu nandalub jigéen dinañ la àttee te buñ la daanee dina am li nga xamante ne ni di nga ko war a fay fii ci biir réew mi te loolu loolu nag bokk na ci ku yëngu ci wàllu nàndalub jigéen wala boog sax ku dimbale wala jàppale képp ku yëngu ci wàllu nàndalub jigéen ci biir réew mi. benn tey tamit ñu ngi fàttali ñi nga xamante ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi ne daal dañoo war a sàmm jigéen yi nga xamante ne ni ñoom lañ tooñ fii ci biir réew mi ci liñ gën a xamee ci gender based violence ndax ñu ne eh, ñooña nag bu fekkee ne ñu ngi report lu aju ci seen i kees yi fii ci biir réew mi dañ koo war a report ci anam bi nga xamante ne ni dañ leen di aar fii ci biir réew mi. ci doonee nag ñu daanale seeni kàddu ci di ñaax nguuru réew mi pour ñu fexe ba gis ne daal dañuy def seen warugal pour sàmm aar li nga xamante ne moom mooy luwaa yi ñu am fii ci biir réew mi ak foofu ca bitim réew pour aar ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi seen i àq ak seen i yelleef te itamit fàttewuñ si ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw yi Seydou Camara Star TV News mbokk yi ñu jaajëfal Seydou Camara si xibaar boobu bu ko defee ñu dem seeti ji nag économic mission bi nekk fii ci bureau Gambia rawat na foofu euh, euh, euh, bokk yi ñu ngi koy liggéey bi ñoo def fii ci bureau Gambia keroog nag mu tombé woon ak bés bi nga xam ne Ghana tamit ñu ngi màggal li nga xam ne nag moom mooy seen independence mu am Ghanéen si bari nga xam ne teew na nañ fa ak itamit nag ay Ghanaians ak ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ay nombu tànk bokk ci li nga xam ne nag moom mooy économique ñu liggéey ci réew mi ñoo na ci Mbaykoor economic mission bu Ghanaian contingent bi ñooñu noonu nekk ca not Bank maanaam ci tundu baara ak jëm ci kaw ñoom ñoo amoon bés yi medal parade maanaam medal parade mooy bés bi nga xam ne dañu leen nekk di takkal ay médaille loolu nag saa yoo ko gisee xamal ne éeri ñibbi jot na ci ñooñu na nekkoon foofu noonu parce que boo saafee any United Nations mission wala economic time ñibbi bu jotee wala time change su jotee dañ leen takkal médaille d'or médaille boobu noonu nag mooy wone ne yow time bi nga waroon a def ci réew moomu noonu def nga ko ci jàmm jeexal nga ko si jàmm ba pare turi réew moomu na fa ne parce que ay troupe la de nekk maanaam di nga am gam koy wan cause dafa nekk ci ay groupe bi groupe bii nag moo nekk juróom-ñaareeli contingent yi Ghana depuis buñ dugase fii nii ci suufi Gambia ci turi économique contingent commandant bu Ghanaian contingent bi nag kooku di lieutenant colonel Kwesi Pepra moom gaaral na ay kaado kontaan mbégte di gërëm seefo yi alkaalo foy yooyu noonu nekk ci Nord Bank Bara ci tund Bara ak lu ko wër ah, Ghanaian ambassadeur bi si Gambia Sénégal ak Cape Verde Miss Her Excellency Miss Emma Mensah moom it sant na Ghanaian yi gërëm na leen ba pare sant Gambian yi si biñ yaatalee seen boppa maanaam ku bi nga xam ne comme yaatal seen xol pour mun a liggéey ak muñal ñi ñu def seen liggéey ci jàmm head of mission bi nag si Gambia Her Excellency Maite Lily French ECO moo nekk ECOWAS head of mission réewi Gambia jaajëfal niti Gambia si jàppale buñ jàppale gaay Ghanaian économique parce que dafa ne dëkk boo dem te dalaluñ la sa xel du mun a dal surtout maa nga mun a liggéey liggéey bu correct kon nag moom mu ne mu ngi gërëm Gambien si si yaatal buñ yaatal Ghanaian si Ramou Ndao nag moom it community leader maanaam kilifa la ci tundi baara ak lu ko ñoom it wane nañ seen kontaante surtout maa moom mu ne parce que bi ñëwuñ rek pour fay safara wala def nañ ci ay lu war ak lu bari place defar ay place pour njëriñi ñëpp ñu fa nekk dañoo jël seen garab di ko yóbbu ci lopitaan bi place yu tilim mi ñu ko set setal di samp ay place di ko jox nit yi note banque yi kon nag moom it amul dara lu mu leen mën a wax lu dul ji leen a jaajëfal Mbaye Koor Star TV News. yi ñu jaajëfal Mbaye Koor si mujjanteelu xibaar boobu ci réew mi bi su ko defee ngeen taaxee lu léegi léegi ñu dem seeti ci xibaar bi réew mbokki xibaaru biti réew yi rek ñu dooree ko ca réew xeet yi ndaxte nag xeet yi seen nguur gi nag ci alxamis bi jàll na leen ab xibaar buy wane ne ñoom seen curfew bi nga xam ne nag ñu ko tàmbali woon seen réew dañ koy continuer maanaam daal dafa am wattu bi nga xam ne dañoo jàpp ne sa la may sa la nguur gi di may nit ñi nag ñuy génn Euh, ci li nga xam ne moom mooy ci mbedda yi officiel si nag wan ne euh, euh, public demonstration si maanaam daal ñaxtu bi nga xam ne nag ñu ngi koy def ci mbedda yi dafa nekk loo xam ne dafa am béréb bi nga xam ne ko tere ndax police yi nag jox nañ leen ndigal pour ñu jëfandikoo li nga xam ne nag moom mooy seen doole doole boo xam ne dafay méngoo ak li nga xam ne moom mooy seen luwaay seen réew pour ñu mën a feyee ba téye li nga xam ne moom mooy askan bi maanaam daal ñu feyee ba bu kenn génn warte bi nga xam ne moom la nguur gi wax ne daal kenn warta génn ku ko def daal nañ la jàpp nag yóbbu la ci kanam yoon

mbokk yi fële ca euh, Kenya euh, jigéen ji ñoo ooyee Njeri Migwe euh, kooku nag jóg na daal di wax li nga xam ne nag moom mooy ay kàddu di dàqalu li nga xam ne nag moom mooy fitna bi nga xam ne nag ñu ngi koy fitnaal jigéen ñi ci réew dëkk boobu na di Kenya ñu ne nag moom moo nekk jigéen joo xam ne moom moo sos benn mbootaay bi ñoo ooyee aussi Kimie wane ne benn mouvement la boo xam ne ñu ngi liggéey pour nag mun a jeexal. Euh, fitna bi nga xam ne nag ñu ngi koy fitnaal ak toro toroxtaange bi nga xam ne nag ñu ngi koy toroxal jigéen foofu la ca li nga xam ne nag moom mooy euh, euh, na si jaar-jaar ñu wax li nga xam ne nag moom mooy seen jaar-jaar ñu ne moom dafa jóg daal di taxaw li nga xam ne nag moom mooy seen head office bi mu daal di fàttaliku moom ci boppam li nga xam ne nag jot na koy daj ak góom-góom bi nga xam ne nag am na ko si pour bëgg a dàqalu li nga xam ne nag moom mooy li di fitna booba moom ndimbal euh, euh, dimbal bu muy dimbalee nit ñi maanaam daal taxaw bu muy taxaw nit ñi euh, tant mu doon koo xam ne survival la maanaam moom si boppam mu doon koo xam ne jaar na si si la loo xam ne daf koy jàppale moom maanaam dafa mel ni daf koy nga xam ne nag moom mooy góomam te loolu mooy tax ba moom it mu mun a bay may baat ñeneen ñoo xam ne nag amuñ baat ci li nga xam ne nag moom mooy seen askan wi ñu ne nag Kenya seen nguur gi report bi nga xam ne report bi nga xam ne génnee nañ ko ñu ne lu toll si juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan foofu la di Kenya ci ren ji mooy Euh, comme ni ko xibaar yi wéralee ñu ne nag am na protest nga xam ne nag foofu gars yi def nañ ko foofu ci dëkk yi màgg yi fu nekk foofu ca di Kenya ndaxte na ay junne junne ci li nga xam ne nag moom mooy ñaxtu booba ndax ñu ne nag euh, euh, ci weeru màcc am na benn xale bu jigéen bi tolloon ci fukki at ak juróom-ñeent 19 years kooku nag dañ koo daal di pousse mu daal di daanu mu daal di daanu ci appartement boo xam ne daanaka ci 28 floor bi la nekkoon maanaam mu mel ni taax boo xam ne euh, si ñaar fukkeeli euh, taax bi nag ci kaw ñu ne foofu la jógee mu daal daan suuf foofu la ca Nairobi ci capital bi bu mu daanoo nag mu daal di dee ñu ne nag am na beneen jigéen joo xam ne kooku itamit dañ koo attaque ñu daal di koy rey

ab ñaari fanu ndaje bi nga xam ne nag ñu ngi ko doon ah, seen EOD bi nga xam ne nag ñu ngi ko doon nag ah, ñetti fan ndaxte jàpp ne ne band yi ba léegi bàyyiwuñ seen xeetu fitna nga xam ne nag ñu ngi koy def seen réew fële ca lii di nag ah, jigéen yoo xam ne ne jóg na pour may baat moroomi jigéeneem yi nag pour mën a jeexal li nga xam ne nag moom moo nekk euh, fitna bi nga xam ne nag ñu ngi koy fitnaal moo nekkoon xibaar yi nga xam ne nag am nañ ko tey si xibaaru marax yi man Omar Tunkara maa leen ko doon àggee Basirou Sall moo ñu nekkal ci machine bi ak ci caméra bi Positive Impera la moo ñu teewal li di xibaar yi mbokk yi jërë ngeen jëf